سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اسرع لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله وسلم على من لا نبي بعد سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا مد الأمين ناصر الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آلي وذهبي قل الميامين ونتم بلسان إلى يوم الدين مبقي yi nu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di leen taw tawfiq ak taysiir bu ànd ak xéewal ak naataang ko defee ñu jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi ki xamante ne moo di suñu téléseer mooy sëriñ maam Cheikh bu Diop fa tabaarakallaahu nga xam ne ci loxoom la yàlla teg seen STV ñu amante nag ñu amaat mbégte ak kontaante ci dajewaat bi ñu dajewaat ak moom ginnaaw biñ ko fàddoo ci diir bu xaw a limu loo lépp nag nekkul woon sago waaye ab sabab rekk la woon fa tabaarakallaahu ñuy bëggee mboolem auditeurs yi Sen TV ah, di leen jaajëfal noonu lañuy ñuy jaajëfalee oustaz Alassane Sow mi nga ni moom moo jóge ci waxukaay bi sànq munu doon jaalale suñu émission xàqu dëkkandoo yal na yàlla fay teful yal na yàlla barkeel ci kartanu yàlla ñu ñëwaat nag pour ñu àndaat ak yéen comme niñ ko miin a defee tey nag suñu waxtaan dañ koy jëme ci wàllu tooñ ndaxte tooñ jaaduwul ci ab jullit muy tooñ waaye tamit jaaduwul ci ab jullit muy digal nit na tooñ mbokkum jullitam waaye tam jaadu ci ab jullit muy nangu ku koy tooñ yooyu yépp nag yu ñu xaraamal la ci alquraanu karim yu ñu xaraamal la ci hadiisu yonent bi sallallahu alayhi boo demee sootul bàqara yàlla ngi naan laa taslimoon wala tuslamoon bu leen tooñ kenn waaye nag bu leen nangu mukk ku leen tooñ <coughs> ndax tooñkat bu ngeen demee bay tooñ nit képp ku jaay nit doole walla mu jaay ko moyen walla mu jaay ko xel boo fi ñëwee man yàlla dinaa la mosal mbugal mu metti boo di sootul furqaan mu nga naan waman yaxsali minkum nusixu azaban kabiran fa tabarakallah képp jeen ku tooñ bu fi ñëwee dinaa ko mbugal mosal mbugal mu safa yàlla ci hadisul xursiyu mu man yàlla day xaraamal naa tooñ ci sama bopp waaye nag def naa ko muy lu ñu araamal seen diggante rek waaye kon bu leen tooñante loolu wax di bu leen tooñante waaw man yàlla man mi leen bind bugguma ku ma tooñ ndax tooñuma leen ñaat yoon nga jàng ci alquraanu karim wa ma salamahumullah walakin kaanu anfusahum yaslimuun yàlla mosu leen a tooñ benn yoon waaye ñoom ñoo nekke woon ci àddina tooñ seen bopp waxaat ni wa ma anna bi salaamin lil man duma tooñ sama jaam jomma naa ci fu may tooñ sama joom kanaa kay nit ci boppam moom moo am dëgëru fit gu toll ne taxaw di tooñ yàlla boroomam walla muy tooñ boppam wala muy tooñ mbokkum jullitam xadis bi wax ni képp ci yéen koo xamante ne seene tooñ na doomu aadama maanaam mu jël suufam mu jël ci suufam lu toll nii sebra moo xam ab téereem la moo xam ab toolam la moo xam parcelle la wala àllam waaye daal dugg nga ci lu tol ni dix centimètres nga daal koy jël def ko muy sa alal ëllëg yowmal qiyaam dinañ ko juqi ba ci juróom-ñaareelu suuf ñu daal di la koy gàcc te mbokk yi yéen ñëpp xam ngeen ne képp ku yee ci yéen ko taawoon ñu duy saaku yii di def ceeb ñuy def cinquante kilos ñu duy ko ba mu fees suuf ñu daal la ko yenn rek fa tabaarakala li laa jëriñ mooy taxawaay ba bu mu yàgg waaye bu yàgg nga tos kare lee nag yàlla nee na su boobaa dinaa ko jeqi ba ci juróom-ñaareelu suuf lépp ma daal la koy gàcce noonu ci bis boo xamante ne si ne fii yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sanatin buñ ko doon misaal ci suñuy ati àddina dafay nekk juróom fukki juni at manam 50000 tan ga lolou mooy bisu alakhirah te ku tooñ nit ci soufam mo xam parcelam nga dag mo xam tolam nga dug wa yawmal qiyam la nga ci dug dañ la ko yen ndax di nga tooñ alal jàmbur nga jël motax fa tabarakallah kon suñu mbokk béykat yi ak suñu mbokk ñu melni courtier yi ngeen jéggal ma tuduma kenn waaw ndax courtier ab metti la waaye ñu métier boobu métier suñu mbokk mbokk béykat yi nga xam ne ñoom ñooy nangu tooli jàmbur ak suñu mbokki courtier yi nga xam ñoom ñooy nangu këri jàmbur nañu xam ne yàlla tëkkoon na leen mbugal mu méttee métti ndax ñu ngi tooñ tooñ bu màgg-màgg fa tabaarakallaa kon nañu moytu ñuy tooñante waa naj sootul aram nu ko saali ak su rabbika isa axasal qura wa hiya saalimatun fa in axsuhu alimun shadidu yàlla de noonu lay jàppe waaye bépp waa dëkk boo xamante ne seeni tooñan doon nañu tooñante ci seen biir bu leen di jàppee da leen di mbugal mbugal mu méttee metti ala alimun shadid adabun alimun shadid kon fa tabarakallah mbokk yi ñu moytu tooñante ah, moom tooñ nag dafay séddaliku ci ñetti façon benn façon bi jaam bi dafay dem di tooñ yàlla boroomam waaw loola nag dafa jëm ci wàllu bokkaale ndax bokkaale du jël du lenn lu dul nga jël mbir nga boole ci mbir mu mbir mu mbir mu ci bokkul woon tooñ tamit mooy nga jël mbir nga jox ko ku ko moomul walla nga jël alali jàmbur nga féetewoo ko te moomoo ko woon moo tax li ñu yàlla nettali Euh, ci làmmiñu Luqmaan alayhi salaatu wasalaam ba muy tooñ ba muy waar doom ji da ko ne yaa bunayya laa tushrik billaahi inna shirka la sulmun azimun sama doom lu mu yàgg-yàgg bul bokkaale yàlla ndax bokkaale kat tooñ bu màgg-màgg la kon benn tooñ baa ngi noonu tooñ ba ka ñaareel mooy nit ki dafay tooñ mbokkum jullitam walla sax beneen lu mel ne mala ci mbindeefi yàlla yi yene sallallahu Alaihi wasallam nak neena kep ci yéen ko xamante sini toñon na mbokum julitam mo xam ab uróom la jël mo xam chefam la jël mo xam kërëm la nangu mo xam parasam la yàq mo xam teyseyam la tas ak lu mandi doon mo xam kërëm la tas waye na del la ko ko bala ñoo ñew ci bis bo xamni ni dollar dula fa jëriñ euro dula jëriñ fa tabaarakàlla chefa du la jëriñ ay moyen moyen du la jëriñ bien du la jëriñ dara jëriñ yàlla rek moo fa nekk moom la maam Sëriñ Tuubaa naan ruddul masalima ilal arbaabi qabla huduurikum la dal insaabi ci aaxiru samaan fexe leen képp ko tooñoon nit naka delloo lam ko tooñoon bala ñoo ñëw ci bisu fayeeku bi te su boobaa kenn du am loo fayee yéen salaam salaam neen su boobaa leen rek moo fa sës nga amoon ak jaamu yàlla ñu jël ca sa jaamu yàlla ñu daal di koy fay ñu xool nag yow amoo ak jaamu yàlla ñu jël ay bakkaaram moom ñu daal koy teg jël ko ñu lay jël yow ñu sànni biir sa sawara mooy jël ko yóbbu àjjana yal na ci yàlla musal xadis boo xam ne Omar ibnu Xataab moo ñu ko nettali ci jullit buy tooñ mbokkum jullitam ni mu ko waxee yeneen salaa salaam mu ne waaw ndax xam ngeen kan moy kan moy ki ñu sisir ñu nak ah yow mi yàlla di ñun sisir ya nañ ne moy ko xamni nangu nañu lam amon ci alal amatul kër amatul palaas amatul ay bien be yep nangu nañ ko mu leen sisiruñ ko ki ñu sisir moy ki nekk ci waktu waxtu musu ko raw wéru koor musu ko raw amoon alal ba aji woon na màkka waaye tamit doona sarxe ci alalam ànd ak loolu lépp fa tabaarakallaahu doon na tooñ mos naa tooñ kii mos naa xas kii mën naa saaga ki mos naa jël alal ki mos naa tuur dereti kii léegi bi mu demee ba yowmal qiyaam ñu àtt ko mu war a dem àjjana dossier bi yëpp libre na waaye ndeysaan ki mu xasoo ñëw na mu war koo fay mu yëkkati ci julli mu daal koy fay toog ndax ci deram la nekkoon mu nar a départ ki mu tuuroon deretam daal di ñëw mu ne ko maa ngi nii de te yaa tuuroon sama deret fay nga fay ma mu daal di jël ci aj màkk ga mu daal di koy fay naka noonu ki mu ki xamante ne seeni jëloon alalam mu ñëw mu ne ah maa ngi ni jëloon ko sama alal noonu la leen di toppee fay la mu amoon ba ki mujj ñëw moom day fekk ne moom lam amoon ci jaamu yàlla yiw lépp jeex na takk te kii fayagoo ko fa lañuy muju ñu jël bakkar ki muju ñew ñu dal ko koy tek fa tabarakallah mom ñu jël ko yobbu sawara te keene ñu dal koy jël eh, eh, yobbu ko aljana ndax kep ko gis af dafa am ñaari kër bi ci adina mo ñettel ben kër ba nga aljana ben kër ba nga sawara léegi nak boo nekkee ci adina nga amé nit boro bakkar sax sur yang koy togn sax sur ay togn yu dul jeex topeng nga ko ba jël nga pala yak nga njangam top nga ko ba yàq nangu nga palaasam top nga ko ba yak nga adinam léegi na sa keur ba nga amoon aljana mo lañu muju fey ko ko su ko defee yow ñu jox la kër nga amoon ci sawara kon mbokk yi fa tabarakallahu toñ dafa metti nañ ko moytu ñi ki ko toñ ci askanam dañuy dem bay fa tabarakal ñi tuan suñu bir mota dama fe wan jogewon don woon ma dem ba jassab ma gis benn waay mu ne day jaay garab mu ne aywa damay jaay garab garab bi waaw ku nuy tooñ du ko jege ma ne a ah, kon de si yow mu moytu ma maa ngi dina nag benn soxna mu ne ah sëñ mbaa dañu mbaa duñ lay tooñ yow ma ne ah kon yow duñ la tooñ sa diggante yàlla duñ la tooñ ma ne ankay ci la dëkk ma ne voilà kon ko garab bi amul borom ñëpp la ñuy tooñ waaye waxuñu façon tooñ boobu tooñ moom ku ñu dul tooñ am moo tax. ma ngi si di laaj maanaam Mamadou Assis si Dabaax doon wax naan bu la yàlla mayoon juróom-ñaar ñoo xam ne dañuy xëccew di gontu ci yow rek sa affaire baax maanaam mooy ñu lay jëw juróom-ñaar ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi lay jëw ñooñu boo leen amee rek sa affaire dafay daal di baax ndax loo ma di liggéey ci àddina yowmal xiyaam bu ñu la fayee dangay daal di baax le te yàgg nañ ko wax góor gi doon wax naan teraanga àddina du nekk teraanga fekk dem sawar dee dem sawar yi ci topp waaye du nekk coono feek dee dem àjjana di ci topp ndeysaan suñu góor gu baax ga Mamadou Mourtada Ndiaye moom moo doon faral di waxantoo loola kon fa tabaarakallaahu mbokk yi tooñ a ngi noona yoneen salaa salaam mu ni kullu muslimin araamun ala aqihi dammuhu wa maaluhu wa irduhu dagaan na ci jullit muy yëkkati baatu tuuma bu ñaaw mu koy teg ci deru mbokku jullitam nga xamante ne seeni fa la jaar fa la jaar fa jaar duutul jaarati fenn ndax fu mu jaar rek ñoo nga am ñu koy xoole kooko rey nga ko waaye nag dagan na ci araam na ci jullit muy jël mbokkum jullitam muy génne deretam di ko mettital fa tabaarakallaa di tuur deretam ci tooñ waaye tamit araam na ci mbokkum julli muy jël alalu jullitam kon fa tabaarakallaa mbokk yi euh, ñu daldi moytu tooñ bu baax a baax yàlla araamal na ko yeneen salaa sallam araamal na ko am na hadis boo xamante ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na tey rek na la woon yow moom yàlla araamal na ci yow àjjana tey boo faatoo directement sa war a ngay def fa tabarakallahu xam naa ne ah, ah, émission bi thème bi maanaam xaw naa yaatu waaye mun ñu ko jeexal lu mënta jeexal nag moom dañ ciy comp rek ah, dañuy teg fa suñu baaraam ba beneen yoon su ko defee ñuy jaajëfal suñu téléspectateur bi muy sëriñ maam bu Jóob ñu koy ñaanal yàlla na am lu gën a ko njortam fa tabaarakallaahu ci diina jeeg duniyaa ji yàlla may ko mucc ak muccule ak bépp doomu aadama kum mën a doon ak fu mën a doon ki ngeen ci àndaloon mooy seen mbokk seen xarit oustaz Ahmed Bamba Sy in uridu ila al islah mastatama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu li unib assalaamu aleykum wa